ngi sant yàlla bu baax di am kontante ci bis bii nga xamante ni amuñu lul moom xamuñu lul moom ca lu ñu am bis bi la ci firnde rek dafa am bis sama waajur wu góor ànd ak sama waajur wu jigéen ñëw ci sëñ Modou Abal bis bi jub mu ne ko mbakke nag nu ñaanal ndax bis bi daa jub si ca waxtu wi daa am fu mu toll mu ne ko Moussa mu ne ko mbakke mu ne ko ana Paate mu ni ko mi ngi nii mu ni ko du man ngeen buub mu ne ko waaw Mbacke mën nanoo buub de mu ne ko boo demee na ngeen buub ba kër ya set màggal gi buub rek moo leen ci war waaye borom bis bi mën na bisam. borom bis bi nag la tax mu man bis bi ay njàngale yu baree baree ngi ci mooy topp sa kilifaa ngi ci mooy doyloo sa kilifaa ngi ci mooy jàpp sa kilifa walis ñëpp ñoo xamante ni ñeneen ñi mu fekkantoon la wala mu di mu di bokk loolu mooy maam Thierno Birahim waaye ba mu ko defee ba noppi nag Sëriñ Tuubaa daf koo delloo njikkal daf ne Ceerno musta tàggook man ci ma ci ci ci ba ba ci ndawam dani Ceerno su fekkoonte ni bëgg ñaw ka la ñu ne dañ cee dañ dañ dañ dañ ko ceerendi mu ni Ceerno su fekkoonte ni ab dëkk su ma dama su ma doonu dëkk Ceerno mooy yoon yu jëm si ci man loolu nag la ko jiitu xam naa ne du fi xaj waaye la ci la ma ciy tënk rek mooy njaalbeen genn neexul njaalbeen yépp metti waaye as go as gor moo mën a tàmbali waaye as gor moo mën a yeggale sëriñ Touba bi mu bi muy ànd ak borom daaru ay bokkam daan nañ ko wax ne sa mag jiikat da nga topp dafa mel ni dafa àndut ak sagoom waaye loolu lépp sëriñ Touba borom daaru topp ci moom am na bis na ko bokk yu tudde woon ba jàpp ni mooma benn bis la jub ay gone gone ya daw am ku daanu mu romb ko fa dem ñu ni kii kët kook sëñ Mor Anta Sali kii kat ndekete daa mel nii waaye du dóore du dugg ca lañ lañ waxoon foofu la toppee foofu la foofu la ànd ak daaru ñëpp bàyyi ko mu topp borom daaru biñ ko yóbboo ci géej gi itam. dem nañ ba bindub leetar ni sëriñ bi nekkatu fi léegi tubaab yi ni ko dangay ngay tas daara ji delloo nit ñi seen bokk muy leen xalaatuma ko mi soxna Ndeye Mbacke mii soxna maam Fatou Issa moo ko ni boo ko wutoo gis boo ko wutee gis na nga na nga ko waroon na nga ko war a wutee gis da ko gis ca guddi ga lam def lam doon def ndigal loole daal di gis Serigne Touba Serigne Touba ca gamoo la bindeb leetar ña ko doon wax mu ne mu bindub lettre ni ko sàllaaw damay liggéey waaye lee ma ñëw waaye neel diw diw ak diw na ma nañ nañ ma moytu. loolu kooku mooy borom bi foofu la ànd ak borom bis bi topp na Serigne Touba ba ñuy ànd ak moom ñëpp seex ni ñu ne ah ndax ma xujjaloo ak euh, sëñ Matar xaw ma nanati dama ko fàtte. waaye ma xujjaloo moomu mooy mooy maami waa waa bari gii ñu ne ñaari taalibe rek la am noonu la demee ne ba àndoon ak sëriñ bi ci waxtu yooyu bi nga xamante itam tubaab yi jaxase nañ kook jaxase nañ kook jaxase nañ kook nasaraan bi maam Thierno mii moo ko dindil tuuba joojee ndax lettre buñ ko bind dañ caa bind la leen neex waaye borom daaru mii moo fa dem. ba mu fa demee nee nañ waxtu waxtu waxtu waxtu une la fa la la fa egg si naaju tàng jër nee na mu ni mu ni gouverneur laa soxla booba lii ma sol moo moo moo moo tànne lool ci saayir ca lam soloon ñu ne ko yow ku ku mel nii ku tol nii dafa ngeen ne yow nga ñëw di seetal gouverneur waaw loo koy doyee sax mu ne dañ ma caa yónnee ab lettre ñu ne waa indi lettre bi bu ñu ko ci secrétariat mu jaar fi mu war a jaar jot ci gouverneur mu ni kamay yónni. kama yónni kama yónni dañu moon sama loxo ak loxoom ni tuuti gouverneur ndekete mi ngi wàcc seet seen muy xëccoog moom mu ne qu'est-ce qu'il mu ne xanaa la gaalaa nee nañ nee nañ nee nañ yow la bëgg gis dañ koy leet mu ne fu mu bàyyi ko ñu ni ko Daaru Manaan ci Serigne Touba mu ne yóbbu leen ko ba deux heures demi ngi na andil ma ko bi mu ñëwee mu jox lettre ba lettre bi ki ko doon ki nga xam ne moo doon interprète lam doon wax ndeke noonu ndeke des ñoom ñoom ñoom lu lañ xam mu ne ko lii mu lii mu lii mu lay wax bu nekkul ci lettre bi mu daal di woote beneen interprète interprète bi liital ko lettre ba la ci Sëriñ Tuubaa waxoon mu ne voilà mu ne ko yebaloon naa ay soldats yoo xamante ne fu ñu waroon mënoon a fekk Sëriñ Tuubaa daañu ko waaye nag yow mii doy nga ma ni la sa mag ji doy la noonu laa doy ndax dina ñëw mu ne ko boo koy woo dina ñëw su ma yegg mu ñëw. ci la demee ci géej gi am fa lam fa am ba yàlla dogal mu mu dellu bi mu dellu see itam wàcc wàcc ndar ñu woo maam mu ni mu ni maam Issa Diène léegi demal wooye li ma borom daaru borom daaru sëñ Issa ci bëggul baax ga ak xër ci Ceerno Birahim ak sëñ Tuubaa nee na bi mu jógee bi mu wàccee gaaru Tiwaawan nee na bi mu wàccee gaarub Tiwaawan nee na tëral na ñetti fas doole gi daaru mën na nee na fas wu daanu rek mu jël weneen fas wu daanu mu jël weneen fas dal daanu mu jël weneen nee na bi mu demee fekk fekk borom daaru mu ne ko léegi sa mag ji moo la woo dara la soxla ñu ànd moom dem ndar borom daaru ay yoor yoor suba teel la fa la fay agsi ay yoor yoor yoor nee na fekk nekk naag nekk naag Serigne Touba ba naaj bi tàng bu ñu taxawee ba sonn ñu su ñu ñu toog daal di jugaat ba naaj boobu war li war leen leen faa fekk mu ne ko Thierno Thierno xaw ma xaw ma da ngaa doylu xaw ma da ngaa da nga da doon li nga doon waaye waaye waaye lii moom xaw ma lu ma doon ndax warga wa nga xamante ne bàyyi woon na ko fa ak desutu warga ak desutu suukar borom daal dog koo jox waaye déggal la ko Sëriñ Tuubaa wax mu ne ko def nga li nga war a def yépp de waaye man nangu naa nga topp sama ginnaaw doo fa gis lenn loo xamante ne lu matadi la. Mhm. kon bis boobu lañuy ñuy seede waajuru soxna Ndeye Mbacke mi muy Serigne a Balla Balla sa boo waree bis boo wootee bis war nga ko war nga koo woote ndax Serigne Moura Balla noo ne sa morom daaru toppee woon bu Serigne Touba sa waajuru baaxoo toppee na ko Serigne Moura Balla ndax Serigne Moura Balla dem na ba tu bañ tudde ko ndaayaan ndaayaan doo turde daay gi la ñuy wax waaw booba dañoo toll ci gor toll ci lokkat fii ba beleel daay géet ba Mbacke Kajoor borom daaru borom daaru moo moo léewu borom daaru la waaye luñ mas gor rek borom daaru moo ko taal léegi-léegi buñ seenee sébb ni xanaa fee daay gaa fa ne noonu la toppe laxasaayu topp topp ko baam ngërëmul Ceerno Birahim bi nga xamante ni maam Ceerno dem na ba xamante ni yaram mayatu ko muy dem ci tool yi daf koo yëkkatee am mu jox ko ni ko ginnaaw aw nga ma ci kër gi aw ma ci yitte aw ma ci tool yi jëlal mu ngaas bi booba lañ xam ni sëñ mu daa baal dina doon Ceerno kooku mooy Serigne Moura daf ni du li ma sant Mbàkke moo moo tax maam lii maam damaa liggéey te ku liggéeyaay wëlbatiku nii sama doom yii nga xamante ni dañoo dañoo sax ci man ne dañ ku ñu doxalu yónneen da laa neex ndax fu ma leen war a jëlee rek laa la jëlee waajur ndey Mbàkke mii ca la bokk. waaye nag ak magam joo xamante ni Serigne Cheikh Asta Dieye fa tubaarakalaaw fokk ñu ko fàttaliku ci bis bi ndax moo njëkk a seex ci Mbàkke nag. sëñ Cheikh Tëjee moo njëkk a seex ci Mbàkke am na bis ma dem Kaolack doomi Baye Niass ni ma oto bi nga xamante ni moom sëñ Cheikh sëñ Cheikh moom moo moom la njëkkam man mii maa ko jaay waaw ay baraaya ak i ak ak i ak ak i ak ak i fil béton yooyu rek la doon sol kooku mooy rak kooku mooy magi sëñ Fallou waaye soxna Asta Dieye mi nga xamante ni moom lañ duppee ki mooy waajuram sëñ Fallou it di ku baax koo xamante ni noonu sëriñ Modou Balla noonu sëriñ Modou Balla defoon ci Thierno Birahim noonu la defoon ca daara jël dëkkoon Baye Amadou Samb mi nga xamante ni moom la may kër gi nee dañ daan def bu xewlu jotee dañ koy wutal gerte saafal ko ko ba mu ñor ñu ñëw jox ko ko loolu lay xewloo ba ëllëgat bokk ak bokk ak donga yi la ñuy dekk waaye bokk ak donga yi seen nekk ba xëy nga am ngërëmul sëñ Modou Balla yàlla may ko may may ko may ko may ko baax itam boo xamante ni dafa yéene ñëpp jàmm dañu man Fallou yéene naa ñëpp jàmm ñu ne ko ah mu ne ko xanaa xam mu ne man mu ne xanaa xamoo ni munoo mu gisoo ko gisoo ko gis musoo gis koo xamante ni daf naan nit ki yaa ngi may xatal ndax ndax ndax jant bi mënu mun mënutu ba koo xool. nee na gis-gis boobee nga xamante ni jant bi tiim na ñëpp di defal ñëpp loolu war a xamante ni kenn mënul kenn kenn kenn ku nekk sa wërsëg foog nga sa borom jot loolu la soxna Ndeye Mbacke mii xam. ba li mu war a def ci bokk yi lépp mi ngi koy def li mu war a dox moom bokk yi nay de bokk yi bokk yenn noo nay de ca muy nit ku baax koo xamante ni ko am fula la am na bàjjalam boo xamante dañoo wax ne ku yàqi waxam da nga ko defar muy soxna benn waaye moom mi itam doo ko gis ci caaxaan ca itam fa tubaarakalaaw xam na la mu doon jamono ji nag dafa neexul ndax léegi dañuy jaawale aw dàll ak mbaxana dañuy jaa dañuy jël dañuy jëlu dàll jox ko place su mbaxana jël pax mbaxana jox ko place bu daal ca ku yendu say daal say bokkam ci yola ndax asalaamaaleykum wa rahmatullah